wa radiyallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بظفر بنا خمينة yonent yàlla yusuf alayhi salaatu wasalaam moom nekk na ca kaso ga nekk na fa fukki at ak ñaar la fa def waaye ba buur bi géntee gént googu rek mu yónnee am ku ko xam dem ci moo wax ko ko ba mu firil ko gént gi buur bi ne kooku firil ma sama gént gi indi leen ma ko de ba waaja demee mi ne ko mi ne ko damal nga wax buur bi ne ko mu dajale jigéen ñi laaj leen laaj leen de lan moo waraloon ñi dagg seen loxo ya buur bi dajale mboolem jigéen ñëpp mu dajale leen laaj leen aaw Zuleyxa mi nga xam ne moo doon bopp pexe bi moom dañ na ci de ne ñin ñoo ko doon sàkk waaye moom ku sell la ku sell la de bi ñëwee nag ba xam ne moom dafa dara ne def na ko ngir lan azizu misra kuy xutey fiir mu xam ne moom du ko xuruj mu ko ci jabaram de biñ ko setalee nag ba set wecc moom lay wax nii di ne wa maa ubarri'u dañu lu ma nafsiya bopp sama inna a nafsiya a bopp sama inna nafsa a nafsiya bakkan sama inna nafsa naka bakkan la amaaratun dig laa kon la bi suuyi ci lu ñaaw de moom nag ma ngay wax ngir suufeel boppam gannaaw ba nga xamee ne yàlla dañal na ko ba nga xamee ne set na ca tuuma guñ ko tuumaaloon ma ngay wax ngir suufeel boppam de ne dañaluma suma bakkan bi ndax bakkan digle akoon lu bon la illaa ma rahima ndere bakkan ba yëram na rabbiya borom sama inna rabbiya naka borom sama xafurun aji jéggal lu mu ay xejjam rahimun aji yëram lu mu leen moom nag wax na loolu ndaxte ca njëlbeen wax na wax na ne wa illaa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna yàlla bu sopp ndiwut pexeem jigéen ñi kon dinaa jeng jëm ci ñoom moo tax mu wax ne wa maa ubari'u nafsiya inna nafsa la amaaratun bi suu loolu moo tax mu wax ko waaye bakkan loolu mooy cosaanal bakkan bakkan lu bon rek lay digle diglaa kon lu bon la waaye moom wax na ko ngir suufeel boppam de bakkanam yusufa moom moom bokkut comme bakkan yooyu ndax moom xam ne ne yàlla moom ab yónnantu la bakkanam du dugg mukk ci diglaa comme lu bon ndax moom ab yónnantu la loolu daganul ci moom waaye wax na ko rek ngir suufeel boppam de waaye loolu nag mooy cosaanal bakkan bakkan moom digle akoon lu bon rek loolu rek mooy mooy mooy yitteem rek lu dul bakkan ba nga xam ne yàlla yërëm na ko yàlla nag su fekkee ne su fekkee ne yërmaande jugee na ci péeb yàlla ba dafay bëbbal ci bakkan boobu nga xam ne digle akoon lu bon la mu mujj nekk di bakkanab lawaama bakkan boo xam ne dafay yedd boromam yàlla bakkan bii nga xam ne mu ngi wax ne amaaratu bi suula diglaakoon lu bon la xaat yàlla mi ngi ciy gëñ naan wa nafsu lawaama bakkan nag su fekkee ne yàlla bëbbal na ci moom yërmandeem dafay jugee ci nafsul amaaratu bi su jëm ci nafsul lawaama mooy bakkan boo xam ne dafay yeddaa kon boromam lépp loo xam ne nit ki bëgg na koo def ci lu bon rek bëgg na koo def rek daf koy yedd leen ne bu bëggee sàcc mi ne ko ko def bu bëggee fen bu ko def daf koy yedd lépp lu mu bëgg def ci lu bon rek mu yedd ko def bakkan boobu nag bu ko yàlla bàyyiwut dafay bëbbal ci moom yërmande di bëbbal ci moom yërmande ba mujj nekk mulhama bakkan boo xam ne dañ koo yankawal dañ koo yankawal ragal yàlla ak nëng de moom la ko yàlla yankawal léeg-léeg mu jeng léeg-léeg mu ragal yàlla waaye nag bu àggee foofu du wit ci moom moom bakkan boobu lu dul lu baax lu baax rek lay wut lu baax rek lay def de waaye nag taxul mu dal mu dal àggul ci mat sëkk àggu ko bu yàlla nag continuer ci moom ay boppam yermandeem dafay bëpp di dem di dem ba at bu jugee ca lawaama jëm ci mulhama jëm ba àgg ci mutmayna de bu àggee nag ci foofu mu ne dal na nag ci pay mu dal nag ci payb yàlla bi nga xam ne dootul gestu dara lu dul yàlla dootul gestu dem ci leneen bakkan boobu nag nga xam ne àgg na foofu bu àggee foofu nag ci lay yelloo ñu ooku ci payb yàlla bi dina ko ñëwal moom lañu wax ne yaa ayyatuha nafsu mutmainnatu irjii ila rabbiki bakkan boobu na nga xam ne dal na ci péeb yàlla bi nag dal na nga xam ne gisatu dara lu dul yàlla ba eh, xoolatu dara lu dul yàlla bakkan boobu nag yàlla nga koy oo ci péeb bi ne na ko yow e yow bakkan bu dal bi dikkal ci sama péy dañ a dellu si sa borom de raadiyatan mardiya sooba ba jàmm bi ci lay am bakkan boobu ci lay am ngërmaande yàlla de bu continuer nag moom bakkan bi yàlla di bëbbal muy dellu mu dellu ci péeb yàlla bi dafay mujj am raatiya mooy lan mu gërëm mboolem attee yàlla yi de ci lay wax ne bi jamil majaari ahkaami karidaa yi sa mbooleem lépp lu sa xalam lépp lu sa xalima dawal rek man nangu naa ko de lépp ba jaam bi nag bakkan bi nag bu àggee foofu nga xam ne mujj na nekk di raadiya di gërëm Euh, bu nekkee raadiya nag dafay mujj nekk di mardiya dafay am ngërmaande ci yàlla yàlla daf koy gërëm yàlla daf koy gërëm ndax yàlla mooy buurab dëgg te jaam bi euh, doomu aadama jaam bi jaam bi du dañ du ga di gaarlu ci boromam ci mbooleem ay ay ay jëfam jaam bi nag bu fekkee jaam bi fekk gërëmul boromam du am ngërmaande yàlla foog mu gërëm mbooleem atte yu bàyyeekoo ci yàlla bu ko gërëmee ba pare ci lay soog a am gërmaan yàlla yàlla gërëm ko bakkan bi nag bu àggee ci raadiya nga xam ne gërëm na lépp loo xam ne bàyyeekoo na ci yàlla lépp rek gërëm na ko lépp lu yàlla def lu naq dégg lu neex lépp moo yem ci moom bu ko gërëmee nag si ah, lay àgg nag ci mardiya de ci lay soog a am ngërmaande yàlla yàlla gërëm ko bu ko yàlla gërëmee rek dafay mujj nekk di kaamila la nekk nafsul kaamila daal di mat nag kon mooy juróom-ñaari bakkan yi nga xam ne ah, doomu aadama ah, dana fa jaar jaaruwaayam soogo madde mooy lan mooy nafsul amaaratu bi suu ak nafsul lawaama ak mulhama ak mutmayna ak radiya ak mardiya de mu amu soogo àgg ci nafsul kaamila mboole eh, nit ñëpp nag ñoom seen soobuwaay yëpp lu dul yonantu ñoom ci amaaratu bi suu lañ dalee ñoom seen bakkan ku dul yonantu rek sa bakkan mu ngi dalee ci amaaratu bi suu diglaa kon lu bon rek nga dem ba ci àgg yàlla daal di yank wal bakkan boobu di bëbbal ci moom yërmandeem mu dem nekk lawaama jugee fa nekk nekk mutmaina mu jugee fa kon nekk mulhama jugee fa nekk nekk nekk radiya àgg ci mardiya àgg ci nafsul kaamila de yonent yi ñoom ñoom ñi ngi dalee seen bakkan yi ngi bàyyi ñoom ñi ngi dalee ci nafsu ma ina ñoom seen bakkan yëpp foofu la dalee de ndax ñoom lu leen di digal lu bon ñoom amuñ ko moo tax mbooleem yonent yi rek jaarun nga ah, ci nafsu la maaratu bi suu jaarun ci lawaama jaarun jaarun ci ñaar yooyu yëpp jaarun ci mulhama ñett yooyu yëpp jaaruñ fa waaye ñoom fuñ jaar mooy nafsul motma ina rek lañ dalee ndax bakk seen bakkan dafa dal ci péebu yàlla bi gisatuñ dara lu yàlla xamatuñ dara lu yàlla def kon yusufa bu waxee lii dafay toroxal boppam rek de bakkan boobu nag muy euh, nafs boobu nga xam ne mooy diglaa ko lu bon bu moom lay aay junju aay jëm jàngoon wax ne wa kazalika jaalna li kulli nabiin adu shayatina insi wal jinni yàlla wax na yonent bi ne ko euh, niki niñ defee ci yow ak cheytaane euh, ay noonu ñi lay noonu noonu lañ ko defaloon bépp yonentu am nañ ay nooni cheytaane nit ak jinne de seytaane nit nag lenn ci firikat yi wax nañ ne mooy bakkanab nit ki mooy bakkanab nit ki mooy seytaane nit ki nga xam ne dafay diglaa kon dafay digal boromam lu bon rek de si beneen seytaane mooy iblis ak ay ndimbalam kon nag nafsu amaaratu bi suuf moom mooy moo gën a nekk noonu ci doomu aadama de nga xam ne dafay diglaa kon lu bon te boobu ci jëmmi doomu aadama gi la nekk de ndax nit ki yàlla def na ci moom ah, xol ak xel ak ruuxu ñoom ñoom ñett ñoo dañoo dañoo toftalante dañoo toftalante ah, ruuxu moom mooy buur bi xel mi moom mooy ministre bi ah, xol bi mooy mufti bi mooy ki xam ne moo leen di fataawa moo moo leen di ñoom moo leen di atte eh, eh, su fekkee ne nag ñoom ñett ñooñu dëppoo nañ dëppoo nañ nekk ñu toftalante su boobaa eh, bakkan bi du mën ci ñoom dara dara duñ ko mën ñoom ñett ñoom bu ñu àndee boo gisee xel mi ànd ak roxo gi ak xol bi bu ñu àndee ñoom ñett rek dara mënutu leen a dara bakkan bi mënu ci ñoom dara mënu leen a ñuul ñooñu nag bu ñu àggee foofu seen bakkan bi du leen digal dara lu baax rek la leen digal ndax su boobaa noot nañ bakkan bi mënu luñ leen ko dara waaye nag buñ sàgganee ba ba ba bakkan dugg ci benn ci ñoom dafay da buñ duggee benn ci ñoom rek dafay not kenn ki bu notee kenn ki rek ñaari ci des yëpp daf leen not mu jeex tàkk rek mu wan def buy not kenn ki rek not yëpp foofu la ñu netti leen dafa am ñetti yëkk yoo xam ne dañoo nekk ci ab àll dëkk ci àll boo xam ne àll bu nëtëx la maanaam lu nekk ci àll ba lépp mboolem eh, xeeti meññeet yi ak rab lu nekk lu nekk ba àll bu nëtëx la daal lépp luñ soxla rek ñoom man fa yëkk bu gel mooy bu zone ak bu ñuul ak bu weex ñoom nag ñu ngi dëkk ak benn <laughs> gaynde ñu ngi dëkk ak gaynde ah gaynde gi nag bët bu set rek mi ngi fexe pour ñëw pour bëgg lekk kenn ci ñoom bu ñëwee rek pour bëgg jàpp kenn ñoom ñett ñëpp ñu dajaloo buñ dajaloo rek e, gaynde gi daal di daw di mu xam ne kii ñii du mën ci ñoom dara mu bàyyi leen benn bés nag ci bési gaynde gi daal di ñëw daal euh, ci ci yëkk wu wu wu gel wa wu zone wa ne ko yow sama mbokk nga te sama xel nga gis nga suñ deri sax ñu nuroo maa yow suñ deri ñoo nuroo àll bi àll bu naat la lépp luñ soxla ci yiw mi fi waaye nag dafa am mbir yu fi nekk yoo xam ne yëkk bu weex bii moom lañ ragal fekk yëkk bi mi ngi fi duñ jàppale ci ñun ni am luñ bëgg bi ci àll bi duñ fi am dara xam nga lu def danga may bàyyee moom ma rey ko bu ma ko reyee nag su boobaa suñu saxuwaay fii dana teel lu bëgg nañu ko am mu nangul ko yëkk bu zone bi daal di ko nangul ko ba guddi jotee rek mu ñëw ñaari yëkk yi daw beru rek moom mu ñëw jàpp ah, yëkk bu weex bi rek ray ko lekk ko moom jeex rek dem ah ba mu ko lekkee ba pare nag ba ci ëllëg mu ñëwaat ci yëkk ci weneen ci yëkk bu gel bi ne ko gis nga ah, yow ak man yëpp benn la benn lañ yëpp wu ñuul wi nag lañ lañ lañ ragaloon ci yëpp weex wi min ci moom moom itam buñ ko rey <coughs> buñ ko rey liñ fii duñ ko am de <coughs> ma rek ma rey bu ma bëgg dana ko ko waaw ci guddi jot mu ñëw rek eh, yëkk bee daal di dor bàyyi ko rek mu ko rek ba ñaar yëpp nag ba ca sa mu ñëw ci moom na ko man yow mu des benn yëkk zone bi bu gel mi ne ko yow ana kan mooy tele ma rey la yow kan mooy tere tey ma rey la mi ne ko kanaa kóllëre bu doxoon sama diggante man ak yow mi ne ko foo gis yëkk ak gaynde di kóllërante bon kóllëre moo war a dox seen diggante ñoom benn kóllëre war a dugal lu mooy ma lekk la rek lekk rek mu lekk ko mu njeex mu ne loolu mooy misaalam bakkan bakkan ah, loolu mooy misaalam bakkan de ah, bu àndee xol ak xel ak roxo ah, xol ak ak xel ak roxo bu ñu àndee ñoom ñett bu ñu àndee dëppoo nekk benn euh, toftalante bakkan du mën ci ñoom dara waaye bu ñu sàgganee rek ba bakkan dugg ci ñoom jeex na dana not xol bi not xel mi not roxo bi de te su boobaa dara dara dafa boobaa dara de dafa yàqu rek moo tax Yusufa ne eh, sama bakkan eh, eh, sama ma ngay suufeel boppam ne dañaluma sama bopp ndax man sama bakkan ah diglaa kon lu bon la de wax na ko rek ngir suufeel boppam waaye ñoom yonent yi seen bakkan yi dal na de bi nga xamee ne nag ah, génn na ah, bi nga xamee ne nag wax na loolu setal nañ ko waxaala wa almaliku buur ba te mooy mooy rayyaan ne utu nii dikkal leen ma hmm? waa mooy mooy buur ba hmm. mi ne waa waa mi ne ëpp nii dikkal leen ma bii ci fëri sama gént gi de asta li suma jagoo ko li naf si ñeel sama bopp mi ne leen ban ba firil ko gént gi nag ne leen indil leen ma yusufa ma jagoo ko ci sama bopp indil leen ma ko Cheikh Ibrahima Niass loolu mooy baax ak buur lépp lu nit ñi soxla du wakkatoo rek bu ci jotee def naan lii maa ko jagoo de du ko bokk kenn mi ne buur yépp loolu mooy seen mbaax de yusufa nag bi nga xamee ne set na ci tuumaa yi ñu ko tuumaaloon yépp mu war a génn nag ci kaso bi daldi di sangu ba set ba sangoo daal sol yéreem daldi sol yéreem yu rafet daal di julli ñaari ràkk daal di dajale mbooleem ña nekkoon ca kaso ba yépp mu tàggu leen ñaanal leen yàlla mi ngi leen wax ne ne leen kër gi le mooy bàmmeeleb ñuy dund kër gile mooy barabam ndokk ak noonu képp ku fi dugg rek sa noon sa sa noon yi ndokk nañ waaye nag maa maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def oh, xol yi ñi tànn ñi ñi ñi leen ñi ñi am yërmaane ci yéen de mboolem buur ñi yaa am mboolem ñu am doole ñëpp yàlla na yàlla def ci ñoom ñu am yërmaane ci yéen te yàlla na leen yàlla di yëgal mboolem xibaar yi lépp yàlla leen ko yàlla di di di yëgal de loolu Yusufa moo leen ko ñaanoon loolu moo tax boo demoon ci kaso gi tey dañ la wax xibaar yoo xam ne ci dëkk bi fii yow yëgoo sax genn wàll ga la leen Yuusufa ñaanal loolu la ne leen yàlla na leen yàlla di yëgal ay xibaar lépp lu xew rek ci dëkk bi ñooñ kaso gi ñoo koy njëkkee de boo demoon danañ la nettali xibaar yoo xam ne dangay nga yaakaar ne lii lii xewul ci dëkk bi de ñaanal Yuusufa ga ba mu leen ba muy génn ci kaso ga ci la leen ñaanal ñaan yooyu de <coughs> ba mu ñëwee nag fala ma ba mu ñëwee nag moom yusufa ca buur ba ba mu génnee ba dugg ca buur ba fala ma kallamahu moom xaala ma wax ko moom nag e, yusufa di ñëw ba mu ñëwee nag am mi nekk doomi e, fanweeri at mu wax moom ci ñaar ci juróom ñaar fukki làkk e, fekk mu wax moom ci juróom ñaar fukki làkk ak ñaar fekk buur bi fekk buur bi booba moom dégg na juróom-ñaar fukki làkk waaye yusufa moom dégg na juróom-ñaar fukki làkk ak ñaar ba mu ñëwee moom ba mu ñëwee dafa wax ak moom ci làkku ah ci làkku ibrani seen làkk ah tontu ko buur ko moom ci ci loxol bi buur bi tontu ko ah mu sokka mu sokka làkk ak moom ci juróom-ñaari juróom-ñaar fukki làkk yu mu dégg de mi ne ko yow làkk bi mu njëkk wax ban làkk la mi ne ko mooy làkki sama baay sama baay mi ko bu ñaareel bi nag mi ne ko mooy làkki sama euh, sama maam Ismaayil de sama baay tax Ismaayil Yuusufa loolu la yàlla mooy juróom ñaar fukki làkk ak ñaar moom la déggoon de ba waxee moom rek moom lay buur di wax ne ba waxee moom rek la maakal wax ko innaka naka yow la day naat ñun al yawma tey makkiinun borom daraja nga aminun ku ñu wóolu nga de ba mu waxee moom rek mi ne ko yow mii koo am daraja nga ci ñun tey maanaam tey jii da la jox palte bu rëy rëy dañ ne ko jox ba mu waxee moom nag mi ne ko léegi firil ma gént yi mu wax ko ne ko loo ci luñ mu wax ko ko firil ko gént gi ba pare ne ko nag dañuy mm, dañuy juróom-ñaari at yii atam naataange la dañ ci bàyyi lu bari buñ bàyyee bàyyi mu bari ñi ñi ñi ñi ñi bojj ci loo xam ne dañ ko mën a dundee loo xam ne dañ ko mën a dundee ci des yëpp buñ ko ko buñ ko bojj nañ ko bàyyi rek ci guub ba rek def ko noonu buñ ko defee nga buñ ko defee eh, bu juróom-ñaari ati bekkoor yi ñëwee mbooleem raison bi yëpp daneen ñëw eh, daneen ñëw ut si fii njëg te boobaa da nga am alal ju bari de yusufa wax ko loolu wax loolu eh, kii buur ba de xaala mu wax yusufa ne ko jaal buur ba nag jaale ne ko loolu anakan moo ko man xaala wax ko yusufa mu ne ko ijaal ni def ma ala xazainil ardi ci magasini suufi misra euh, euh, euh, def ma ma nekk fal ma daal ma yore magasin yi ma ma yore leen jiite leen fal ko nii naka man xabirun aji wat la ma ko alimun aji xam la ma de yonent bi sallallahu wax na ne yàlla yàlla yërëm sama mbokk yusufa mu sàkkutoon palte ci bés boobu bu ko bu ko waxutoon na ko fal ma kon bés boobu lañ koy fal de waaye bi mu ko waxee rek yéex na ba ca déwén si si lañ ko soog a fal waaye bu ko waxutoon bés boobu lañ koy fal ah, laaj na fal ah, ñi fal ko nag laaj fal dagan na su fekkee ne buñ la ko joxee da nga jubal da nga la na dara nekku ci de waaye su fekkee buñ la ko joxee doo maandu jarul nga koy laaj de Yusufa nag ñi ñi ñi ah, ba sa déwén sa ba déwén sa eh, eh, ba ca atam déwén ma rek ci lañ fal yusufa de fekk xutay fiir ya jëkkëri Zuleyxa génn na àddina dee na ba mu dee rek ñi fal ko palaasi xutay fiir mu nekk azizu misra ba mu nekkee nag ñu jël lépp jox ko mbir yëpp ñi dajale ko ci loxo yusufa de yusufa nag ba nga xamee ne atam naataan yi ki atam naataan yi ñëw na mu dajale mboolem waa dëkk bi yëpp digal leen ne leen na ngeen bàyyi ci at mi na ngeen bay nit ñëpp mu dajale leen ñiy bàyyi di bay di bay rek di bàyyi mi ne leen bu leen bu bu leen góob dara loo xam ne bu leen bojj dara lu dul loo xam ne da ngeen ko da ngeen ko mën a dundee de mhm. eh, ñi ñiy bay nag di bay dajale lépp lépp bàyyi mbay mu bëree bëree bëri lépp def ko mu defar ay magasin yoo xam ne fa la ñuy def eh, eh, mbay ma te du yàqu ñi def ko fa lépp ci kàttanal yàlla denc nañ ko fa te yàqu ci kàttanal yàlla de loolu yëpp baax ak yusufa la ak nekk di nekk yonente yàlla buur ba nag ah, mujj gi nag buur ba daal di jël boppam lépp mu jox ko yusufa moom fi mu ne dégloo déglootul kenn ku dul yusufa yusufa rek lay déglu lépp lu yusufa wax rek loolu am na ñu wax ne dafa jébbalu mujj na jébbalu ci loxoom nekk di nekk yusufa yusufa nag mujj na lépp loo xam ne ah, mujj na misra yëpp nekk ci loxoom de wa kazalika mujj na lépp nekk ci loxoom yusufa nag bi nga xamee ne bi nga xamee ne fal nañ ko loolu ñi defal ko sambal ko ab lal boo xam ne ñi ngi ko liggéeyee ci urus ci urus lañ ko liggéeyee bu guddaay mi ngi toll ci fanweeri xasab juróom-ñaar fukki lan man ko mu wax buur bi na ko lan bi ñu ma defaral moom dinaa ci toog ndax damay dëgëral sa nguur gi tampon yi dinaa ko dinaa ko jël ndax damay dëgëral sa nguur gi waaye nag na mii ak yëre yii moom du ma ko sol ndax bu sama yére du sama yére baay de bokkul sama yére du sama yére baay yi du ma ko defoon muy ay yére buur def ci ay or urus bu nekk ñu def man lii lii du ma ko sol de nde bokkul sama bi nga xamee ne nag juróom-ñaari ati bekkoor yi ñëw na addina bi yëpp bekkoor ah, ah, raison boobu yëpp am bekkoor mu métti ah ku ñëw di jënd si rek Yusufa ne leen Yusufa daal di charta ak ñoom ne leen at mu njëkk at mu njëkk moom ah dinaar ak dirham rek lay jël lay képp ku bëgg daal mu jaay la ko indi dinaar ak loolu rek lay laal waaye laalu dara at mu njëkk bi loolu lay def atam ñaareel ma ñu ñi dem ba nga xam ne amul benn dinaar ak dirham boo xam ne des na ca dëkk yi lu dul mi ngi ci loxo Yusufa moom moo ko moom de ñi dem ba ci atam ñaareel atam ñaareel mi ne. du ma jaayee dara lu dul seen i takkaay ak urus rek seen takkaay ak seen urus loolu rek laay laal du ma laal xaalis loolu rek ñëpp dajale lépp lu ñu amoon ci takkaay ak urus lépp jox nañ ko Yusufa de ndax ku bëgg dund rek da nga jënd mujj gi dem nañ ba xam ne lépp luy takkaay urus lépp ci loxol Yusufa la nekk de moo ko moom ah atam ñetteel Yusufa ne du ma du ma jaayee lu dul ah, ah, ah, eh, eh, ay ay daaba ak yi ak yi eh, ak i juri kër loolu rek ay fas ak i mbaam ak loolu rek lay laal loolu rek ñi dajale mboolem dëkk ba lépp lu nekk ci ay fas ak i mbaam ak juri kër lépp nekk na ci moomeelu Yusufa de atam ñeenteel mi ne duma duma duma duma duma jaayee lu dul ay kër ak i tool ay kër ay kër ak i tool loolu rek lay la ak i garab képp ko képp ku bëgg ma jaayee daal loolu ngi ñu dem dajale lépp loo xam ne nekkoon na ci kër ak i tool ak i ak i garab dara desatul ci dëkk bu loolu lépp kon ci loxol Yuusufa de ca atam juróomeel ñu du ma jaayee lu dul jaa seen jaami ay jaami góor indi leen ma jaami góor yu jigéen loolu rek laay jaayee de ña dajale lépp lu nekkoon ci jaami góor ak jaami jigéen lépp dara desatu fa ci jaami góor yu jigéen lu dul ci moomeelu Yuusufa de ca atam juróom benneel ñu ne du ma jaayee lu dul seen i doom jox leen ma seen doom lañ amoon seen doom yëpp ñu jox ko ko de ah, nga xam ne kenn desul ñëpp lépp ñu ngi ci loxo Yusufa atam juróom-ñaareel nag mais leen jaay leen ma seen bopp jaay leen ma seen bopp ah ñëpp jox ko ku bëgg rek da nga koy jox boppam ñëpp dem na ba nga xam ne daal Misra lépp lépp lépp ci loxol Yusufa la nekk rek Yusufa nag daal di dajale lépp ñëw indil ñëw ci buur bi ne ko gis nga li ñu yàlla. gis nga li ñu yàlla may gis nga li ñu yàlla may buur ba daal di gis loolu daal di kontaan lépp bi mu dajalee lépp xam ne moo ko moom nag ñu ne ko buur bi maa ngi lay seedaloo di seedaloo nit ñi ne ñëpp goreel naa leen te ñëpp goreel naa leen delloowaat naa leen lépp luñ moomoon ku nekk loo joxoon jaay ko rek ñëpp delloowaat naa leen ko rek waaw kon nag Yusufa dem na ba nga xam ne Misra yëpp ci loxoom la nekk de lépp ci moomeelam la nekk loolu lay buur yusufa ba génnee ko ca kaso ga makkan naa la jàpp ne lu yusufa li yusufa ñeel yusufa fil ardi ci suufi misra de yete ba woowu daf na wàcci min haa ci dëkk ba ay su yashaaw fu mu ko soob de fu mu ko rek mu mu wàcci de anusibu def na cëtu bi rahmati naa ci su suñu mën na shaaw anusibu def na cëtu bi rahmati naa ci yermaani suñu mën na shaaw ku ñu soob wala nu diw defut sànq ajalal musinina yooli way yéwénal yele yusufa nag daal di jël lépp lu moomoon lépp loo xam ne moom moo ko moomoon joxe na ko de joxe na ko lépp ñépp mu goreel leen ñépp goreel na leen de waaw wala wala ajiru wala ajiru àllaaxira ci yorob la àllaaxira xayrun moo gën li de dina ñeel ña xam ne amunu gëm nañ de wakkaanu dañ nekk yattaquna yàlla de yusufa xam ne ne yorob àllaaxira moom moo gën fuuf la ko yàlla di dencal moo ëpp loolu loolu moom moo tax ñëpp ko rek na leen de xam ne ne mbaax gi mu def moom Yusufa dana fekk ci àllaaxira lu ëpp loolu de lu gën a bëri loolu dana ko fekk de loolu nag ba loolu amee nag Yusufa daal di daal di nekk daal di nekk Azizu Misra jiite lépp ma def ay magasin di liggéey di liggéey ñépp di liggéey bu xëyee ma nga war naaru góoram lay war sol ay yéreem dem bu génnee rek ba fas bi nga xar rek mbooleem kuddaam yi nga xam ne dañuy liggéey ca magasin ñépp yëg ne buur bi génne dañuy génn ànd ak moom liggéey mu nekk foofu di liggéey di liggéey dafay nekk di nekk di nekk ba guddi jot ba ngoon jot mu dëpp ñëw bu ñëwee si mi yéreem da sangu daal di sol yére jaamu yàlla am toog di jaamu yàlla ba bët set lii rek ci la Yuusufa nekkoon ne alayhi salaatu wasalaam le euh, bés nag euh, bés nag bi nga xamee ne loolu am na bés mu génn rek ba mu génn rek Zuleyxa daganu ko mu ngi taxaw ci yoon wi naan ko Yuusufa Yuusufa Yuusufa Yuusufa ko ah beneen bés mu daganu waat ko ci yoon wi naan Yuusufa Yuusufa Yuusufa Yuusufa ko mu wéy ba ci ñetteeli fan bi ñu naan yusufa yusufa yusufa yusufa déggul ko de mu woy ñu ne yàlla tudd na ma sell ak yàlla mi nga xam ne subhaana man akrama ah, ah, mi ne tudd na ma sell ak yàlla mi nga xam ne moom moo mën a teral jaamam ba mu ko ragalee topp ko moo mën a toroxal buur ba ko moyee de yàlla daal di jël baat yooyu rek baat yooyu ndaw si wax muy sulee xaawaa rek mu sànni ko ci nopp yusufa yi Yuusufa nag daal di wax ne daal wax bëkk néegam ne leen kooku di wax wax jooju kooku di wax wax jooju jël leen ko ngeen yóbbu sama kër ñu jël ko yóbbu ko këram ba guddi jotee nag moom Yuusufa ba mu dellu si jugee ca liggéey ba ñëw dugg eh, ci néeg bi muy jaamu yàlla di jaamu yàlla ba ci yàgg rek rek kalam rek ndaw sa rek ki waxoon baat yooyu mu wax bëkk néegi ne leen indil leen mu ko de ñu indil ko ko ba mu ñëwee rek mi ne ko ndaw si ba mu ñëwee ba toori Zuleyxa fekk boobu màgget na ndax fekk boobu màgget na ba kootoot ba gisatul boobu am na juróom ñeent fukki at lu teg am na ko ah ba mu ñëwee rek mu wax Yusufa ne ko Yusufa ndax yow xam nga ma Yusufa ne ko déedéet xaw ma la de mu ne ko ah Yusufa gaaw ngaa fàtte lool yow li ma daj ci yow nga ne xamoo ma mi ne ko xaw ma la de mi ne ko man la Zuleyxa mi ne ko subhanallah bopp fitna ji bopp musiba mi kon yow yaa ngi dund ñu ne ko Yusufa yow yaa may ak dundam àddina ba tey ñu ne ko Yusuf ñu ne ko Zuleyxa an sa taar ba ñu ne ko lépp jeex na la an sa bët yëpp ñu ne ko jooyee naa la ba gisatuma ba gisatuma jooy naa jooy jooy ba gisatuma la ñu ne ko Zuleyxa an sa alal ja la yàlla jox an sa alal ja ñu ne ko képp ku tudd Yusufa sa tur wi rek ma yëkkati ko jox ko ba amatuma dara te lépp dundale naa ko ci yow eh, Zuleyxa demoon na ba nga xam ne képp ku tudd Yusufa ne Yusufa rek mu yëkkati alalam jox la dem bu feebaraan buñ ko gàjjee ba deret ji génn deret ji buy war deret Yuusufa lay dundalee ngir mbëggeel bu métti gi mu amoon ci Yuusufa loolu amoon na ko dem moom Zuleyxa loolu nag ñu ko mu wax ba ki ne yem ne yóbbu ko ah, ngeen laaj ko soxla bu mu am rek ne ko ko fajal de <coughs> Zuleyxa ne ko man suma soxla kenn mënu koo faj ku dul yow yow rek yaa ko a faj mi ko luy sa soxla mi ko ñaanal yàlla mu delloo ma ah, sama taar ah, def ma mu delloo ma sama njànk ga nga pare delloo ma sama taar ga takk ma ma nekk sa jabar loolu rek laa bëgg waaye bëgg ba leneen Yusufa nar a bañ rek Jibril wàcc sa borom sa borom mi ngi lu la ndaw si lépp lu la ndaw si wax rek defal ko ko de jabar la ci àddina te sa jabar la ci àldina de bàyyi mi ne kooku jar takk mu takk ko de mu am ak moom ñetti ba mu takkee moom am ñetti doom de mooy ñaari doomi góor ak benn doom bu jigéen moo jur Afrasim mooy ci seen luga mooy Ibrahim de maamam Ibrahim la ko tuddee ak Maysha ak rahmatu jabari Ayuba nga xam ne qisaam xam naa ñëw ca suratul Anbiya Maysha moom moo jur Nuun nga xam ne moo jur Yusha nga xam ne moo doon ba àndandoori musa boobu ñooñu ñoo leen juree loolu nag bi loolu amee nag jëlee xaar yi noonu de Yusufa takk na ko mu nekk mu nekk jabaram de mu am ak moom doom yi mu am moom de bi nga xamee ne nag ah, bekkoor ba xiif ga nag dem na ba daj mboolem mboolem dëkk yi daj na mboolem dëkk yi réseau boobu yëpp xiif ba nag bekkoor bi dem na ba àgg ba àgg Sham ba àgg Kanaan ba nga xam ne fa la bàyyi Yusufa dëkk ak mbokkam yi de Ah, bi loolu amee nag Yaaquba wax leen ne leen dégg naa Azizu Misra ne moom ku ko dem jox ko rek dan la jox loo lekk de dan la jox ñoom dem leen fa ba xam ñoom nag ñu ngay ñëw de moom lay buur di wane wa jaata dikk exwatu Yusuf a ah, ah, Yusufa mbokki Yusufa yi de fa daxalu tañ xaraf ale yi ci moom faarafum xam leen de waxum ñoom munkiruna way fakk lañ lawu ñeel de ñoom nag fàtte nañ ko de gannaaw ba nga xamee ne nag bekkoor ji dañ na ba àgg Caam ca Kanaan fa Yaquba dëkk ak i doomam ay doomam nag ñëw nag fukki doom yi fukki doom mi doom yi góor yu Yaquba yépp ñëw mooy ña sànni woon Yusufa ca teen ba ñoom ñépp ñu ñëw nag ut si njëg de ba ñëwee Yusufa xam na leen waaye ñoom xamuñ ko ñi neen nun leen xamee ñi ne dafa wax ak ñoom dafa defoon benn entreprise ci buntu kër eh, eh, ci buntu dëkk ba ku ñëw rek dañ lay laaj ñu la foo dëkk ngay wax foo dëkk boo laajee dañ la xam ñi ne ñoom nag ba ñëwee dañ ñu ne ngeen ndax rajo kar ngeen ñi ne déedéet waaw ñun ñu rajo kar de ñun doomi Yaaquba lañ doomi Yaaquba lañ seen bopp ba Yuusuf ba xam leen ñi ne dafa defoon ñi ne daf leen gis rek ah, xam leen de ñi ne daf leen gis rek xam leen de noonu nag Euh, ba loolu amee nag ñu wax ko loolu de ne ko ñun euh, mu mu xam ne moom lay wax ne faara foofu tam xam ne waxum ñoom mun turu na way fakk lañ la wuñeel ko de euh, loolu ba mu amee nag Yusufa daal di jël leen ba mu leen xamee ba mu seen askan gis na leen xam na leen mu jël nag daal di leen jël di leen teral di leen ganale dugal leen ca palem ba di leen ganale di leen ganale rek dugal na leen ci néeg boo xam ne e, daf leen a wax ne mu taajal leen lekk ne leen képp ku nekk ku nekk ku ku ku bokk ak sa morom rek na na bokk benn palaat de noonu la leen def ku nekk rek nga bokk ak ndey nga bokk benn palaat <coughs> bañ lekkee ba pare nag mu dugal leen ci néeg boo xam ne mu dëkkal leen foo xam ne dañaa nataal fo e, photo yonentu yàlla yusufa photo yusufa bañ koy dóor muy daw kun dem rek keneen bu dóor ko ña ngi fa ña ngi fa ña ngi fa nattale loolu de ah moom ña ngi fa def tamit ah ña ngi fa def nataali yonent yàlla yusufa bañ ko sànnee ca teen wa xaal yooyu nga xam ne ah, moom daf koo def rek dëkk leen pour fàttali ko leen mu def ko foofu bàyyi lañu dëkk biñ biñ nekkee foofu nag ba mu gane leen gane leen ba pare mu njëggal leen de wal ah, mu njëggal leen wala ma wala ma jaazahum bam ba mu yebalee leen bi jaazihim ci yebal seen mooy ba mu leen nattalee bañ matal xaala mu wax fekk nag ñoom dañ ko wax ne ko Yuusufa daf leen wax ne leen ndax yi nii rek ngeen toll nii rek ngeen toll ñu ne ko déedéet ñun fukki góor lañ woon ak ñaar e, suñ benn rakk ba Yuusufa moom dafa dee ci jéeri ji ci àll ba la dee suñ e, e, suñ rakk bu ndaw moo ko desee bu tudd Benyamin moom la suñu bàyyi jël di ko defee de di ko fàttalikoo Yuusufa ah kon ñoom ñoo tudd seen bopp wax loolu kan xam leen bi mu leen jéggalee wax leen ne waaw tuuni dikkee leen bi ci mbokk la kum ñee ci bàyyi seen seen mbokk moom nag ngeen wax ne ngeen ma ko indil ma xam ndax li wax dëgg la wala du dëgg ngeen ma ko indilul kon du ngeen kon ma xam ne du dara te damay xam ne yéen ñi ñuy fen ngeen de waxu leen dëgg te leen nattala ci mukk alaa taraw na kanaa gisu leen ne an yéen aka man uuf yi danaa matal alkay la natt wa ana man xayrul munzilina maa maa gën ci way gane la ñu de fa in lam taatuni ndem dikkale woon ma bi ci benyamin falaa kay la déet ak natt lakum ñee leneen di fa man wala taqrabuni te bu leen ma jege de ah wax na leen loolu nga ne seen mbokk moom Benyamin daal su fekkee li ngeen wax dëgg la bu ngeen ma ko indi lul kon du ngeen amati ci man natt la du ma leen joxati dara njëgg du ngeen ko amati mukk xaalum ñu wax ko sanu raawidu xal nañu ko sàkku a anu ci moom abaawu baayam deneen góorgóorlu ba sàkk ko ci baayam de ci e, wa innaa la bu ñu la faayilu na way def lañ loolu de waxaala wax ñoom nag ñu ne ko insha allah ne ko daneen ko buñ demee daneen ci dogu daneen ci góorgóorlu trop pour sàpp ko suñ bàyyi laaj ko de loolu daneen ko def xaal wa xaala wa li fidyat yi ah, moom yusufa wa xaala wa li fidyat yi ñeel bëkk néegam ya ah, bëkk néegam ba na ko ijaalu defal bidaatum ay dërëm seen fi rihaalihim ci sëf la laallahum ndaxte ñoom yaarifuuna ñi xam idan xalabu ndem dellu nañ ila ahlihim ci ñooñ seen laallahum ndaxte ñoom yar jiwoon nañu dellu si de ñu ne ko nag yusufa nag ne ko daal di wax bëkk néegam ne ko jëlal dërëm yi nga xam ne moom lañ jëndoon moom lañ jëndoon yoo xam moom lañ jëndoon njëg mi yëpp delloo leen ko euh, euh, euh, nag leen ko delloo ci seen sëf yi delloo waat leen ko ndax ñoom buñ ko gisee danañ xam ne lii moomuñ ko danañ ñëwaate danañ dellu si waat ah, ñi def loolu de falammaa raja'uu bañ delloo ilaa abiihim jëm ci baay seen xaalu wa yaabaanaa yow baay suñu yaabaanaa yow baay suñu mu ne a tereef na min naa fi alkayla a alkaylu nattale a ki alkaylu njëgg su fekkee yónni woo suñ mbokk di di di benyamin de fa arsil yónnil maanaa mu ànd ñu naaqaanaa mbokk suñu a nattal ñu njëgg de su boobaa kon deneen njëgg wa innaana ku ñun la xaabaduna way wattu lañ la wuññeel ko dara du jot de wax nañ nag seen baay ba ñëwee ba dellu di seen baay yaaquba ne ko baay ebalal sa doom ji bu ñuy demaat mu ànd ak ñind su boobaa buñ demee daneen am njëbbi de waaye buñ da buñ ah, bu bu demut kon duñ am de <clears throat> waaye ñin nag daneen ko wat daneen ko wattu ba dara du ko dal xaala wa moom Yaaquba ne ah, ne hal ne hal amanukum xoolu timu alay ci moom illa kama amintukum nderek kem la ma leen xoolu woon ala aqi ci mbokkam de yusufa du ma leen xoolu ci moom lu raw óolu ba ma óolu ba ma leen óolu woon ci yusufa du ma leen óolu ci moom ma leen óolu ci ci yusufa te def ngeen la ko def óolu naa leen ci moom torop ci yusufa kóolute bu dëgër waaye def ngeen la ngeen ko def de kon amul benn kóolute bu gën a rëy kóolu googu fallaahu min qablu ca njëkk yàlla xayrun mooy aji gën xifdan ah, mooy aji wattu woowa moom arhamu rahimina mooy aji yërëm way yërëm ya de wala fattaxu bañ xubbee mataawum ay bagaas seen wajatu ñu fekk bidaatuhum ci ah, ah, bidaatum ci ci ci ci marchandise seen bidaatum ay dërëm seen ruddat dollew na ilayhim jëm ci ñoom ñoom nag bi ñu ubbee seen seen seen bagage rek bañ ko ubbee rek rek ñi gis dërëm ñi nga xam ne moom lañ jëndee ñu delloo leen ko de xaalu ñu wax yaa abaana yow baay suñu maanaam bi luñ ci ci teraangay buur bi haadihi li le bidaatu naa ay dërëm suñu la ruddat delloo na naa jëm ci ñun mm-hmm. ah, ah, lii de bañ ubbee rek gis nga xam ne moom lañ joxe woon ñi delloo leen ko rek ñuy wax seen baay na ko lii dara muy jël loola la ñu nii de yëpp ci teraanga bu la ah, ah, ah, ñu sopp a wan namiru te naa ñoom suñu de waaw mi ne mi ne kon nag jox ñi jox ñi kii de jox ñi benyamin wanax foofu daneen wattu aqaanaa mbokk suñu kay ak kay la ak kay la baxirin njëgg ak njëgg ak gëlëm ñeel suñ mbokk benyamin de zalika loolu kay loon njëgg la ay yes yi mun ngay aji jàppandi de ñu ne ko nag fi mu ne jox ñi suñ mbokk su le euh, jox suñ mbokk Benyamin ñi ànd ak ànd ak moom ah, dem buñ demee daneen am njëgg te boobaa danañu dolli ndax Yusufa daf seen mbokk mu dinaa leen dafa dinaa leen dinaa ko jox njëgg ñi suñ mbokk mi ñu yóbbu ko de xaala moom yaa xuba ne lan ursilahu yónni moo ko maakum mu ànd ak yéen hatta tu'tuuni ba te ngeen joxo ma wasiqan kóllëre min allah bu tukkee fa yàlla la taatuuni dangeen dikkal leen ma ko bii ci moom illa an yuhaata an dara bu xalaku bikum ak yéen de mi ne leen man nag du ma leen ko yónni mukk mu dem lu dul dangeen maa jox kóllëre ak kóllëre goo xam ne dangeen ma kóllante wax ne dana ñëw lu dul ngeen dee yéen ñëpp wala ñu not leen rek waaye euh, ngeen jox ma daal kóllëre bañ tontoo nag waxoon na ko vraiment ah, atawu bañ joxe ko moo si xoom kóllëre si leen kóllëre ko na ko daneen ko garde bu baax daneen ko wattu dara du ko laal dara du ko jot xaalum wax moom Yaquuba ne allahu yàlla euh, wakiilun aji seetloo laa ko alaa maa naqulu ci li ñu wax de man ak yéen li ñu wax yépp seetloo naa ko yàlla de bam ba bañ demee nag ba nga xam ne nangu na euh, pour yónni leen pour ñu dem ànd ak Euh, ñu moom benn yaa pour mu ànd ak ay mbokkam dem ca Misra uti njëgg ah ba mu ba mu mu seeti loo ko yàlla def wa qaala tam wax moom yaquba ne koy moom yaquba ne yaa bani yéen doom sama laa tadxulu bu leen xarab misra min baabin ci buntu waahidin ba di benn de yéen samay doom nag bu ngeen demee bu leen duggee ci benn buntu de ah wa duxulu xarab leen min abwaabin ci buntu mutafarriqatin yey aji ah, yey aji wuutee de bu ngeen demee nag bu leen dugg ci benn buntu na ngeen duggee ci ay buntu yu wuutee de booba ma ngi koy ma ngi leen di ragalal bët ndax bu ñu ne fukki góor yi ak benn yëpp nga xam ne ñoom ay nit ñoo xam ne lañu woon dañoo motoon lool ci bind ak ci lépp lañ motoon mu ne bu leen bu leen ñi ñi gisee ne ñii ñëpp kenn góor moo leen gis loolu baaxul su boobu moom ma ngi leen di moytu loo bët de moom lay buur di wax ne wa maa uni jañit ankum ci yéen a ci wax jooju moo min allah ci yàlla min shay'in ci dara in hukuma del attee illa lillahi ndere ñeel la yàlla alay ci moom tawakkaltu la ma dëgërlu wa alay ci moom fal yatawakkil lay dëgërlu al mutawakkil al mutawakkil la way dëgërlu ñu de yaaquba nag wax ne leen loolu ne leen bu ngeen demee misra ba àgg bu leen ñëpp ci benn buntu bu leen fa duggee de na ngeen dugg ci ku nekk par ñaari nit ñu nekk nañ duggee ci benn buttule pour ragal ci ñoom bët pour bañ rek bët dal leen waaye Yaaquba moom xam na ne dara mënta jëriñ ñi dara mënta lor ni lu dul yàlla de waaye wax na ko waaye li dëgg daal mooy mooy la wax ne dëgër lu ci yàlla de ndax jaam bi a xam ne ne yàlla mooy def lépp de moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ci maanaam ci la yonent wax ne al aynu xaqun yonent ne bët bëri na nit ku dugg biir bàmmeel fekk bët moo ko fa yóbbu bëri na gëlëm ku dugg ci biir cin fekk bët moo ko fa yóbbu de kon nit ki buy xool jëm ci nit wala muy xool dem ci dara bu bañee bët jàpp ko na wax ne allahuma barik fii de na wax lool yàlla yàlla barkeel na wax lool képp kooy wax rek bët du la mënal dara te it yow la ngay xool noonu doo ci man dara de ndax am bët la ragal ci ñoom moo tax mu wax leen loolu ne leen bu leen duggee ci benn dugg leen ci ay bunt yu fasanti ko de wala ma daqanu ba ñu xarefee min ay su amarum fa digal leen ko abuhum bàyyi seen ma bi nga xamee nag dugg leen fa nga xamee ne foofu la leen seen baay digal na leen na ngeen duggee ci bunt yu utee ak ñaar ñu nekk nañ duggee ci benn wàll maakaana nekkul yow nii di jëriñ a yow nii di jëriñ amul ci ñoom mi na laay ci yàlla min shay'in ci dara illa du nekk aajatan aajo fii nafsi yàquba ci bakkanam yi ci bakkanam yaquba xada dogal na mu ko de waaw ah, moom nag yaquba loolu mu def daf koo def rek ngir yërëm leen de ngir bañ bët jàpp leen ngir bañ gémmiñ jàpp leen de moo tax mu wax leen loolu de wa innahu naka moom yaquba lezu ilmin borom ak xam-xam la li ma àllam naa te lañ xamal na ko walakin la a dafi nekk aksara naa si gën ci bëri ci nit laa yàlla mën a ñoom xamuñ loolu lépp wala ma daqalu ba ñu xarefee ala yusufa ci yusufa aawaa mu topp ilay jëm ci moom jëm ci moom yusufa akaaw mbokkam de yusufa nag bi nga xamee ne ñëpp dugg nañ ba gis rakkam ja benyamin mu topp rek jëm ci rakkam ja de waaye mu ngay def pexe aa dafa bàyyi ba lekk jot mi ne ñaar ñu bokk ndey nañ bokk palaat ñaar ñu bokk ndey nañ bokk palaat ku nekk rek nga bokk ak sa nga ñëw bokk ak moom di lekk de benyamin daal di toog di jooy mi ne ko waaw yow looy jooy de mi ne dangaa wax ne ñaar ñu nekk ku ndey ku nekk comme bokk ndey na toog moom lekk ak moom de man nag aw mbokk aw aw ma fii ku ma bokk ak ndey kama bokkoon ak ndey dee de dee na àll ba ah mi ko ndax bëggoo ñoo man bëggoo ñoo bokk man mi ne ko ah yow de kenn bañu ta bokk yow ñëpp bëgg nañoo bokk ak yow waaye Yaaquuba jurul la Raayil jurul la de ah mi ko waaye ñëw rek mu ñëw bokk moom ba guddi jotee mu bëgg fanaan moom rek def pexe mi ne képp ku nekk ci kum bokkal ngay na bokk moom néeg de ñëpp ku nekk rek ànd ak Benyamin daal di toog mi ne ko yow lan mi ne ko la ma daloon ca suba moo ma dal léegi de aw ma kenn ku ma bokk ak mi ko ndax bëggoo ñoo fanaan ak nag la raay jurul la de ah mi ne ko ñëwal rek nag fanaan moom moom Yusufa ci benn néeg ma koy laaj nag di ko laaj mbiram Yaquba ne ko yaa di ko laaj Yaquba ci lan la nekk di ko laaj mu koy wax di ko wax ci Yaquba ci lim nekk ak ni mel ak ba mu tàggoog doomam jooju ni mel ak yëpp mu koy wax gannaaw ga nag mu laaj ko ne ko yow sa mbiram bopp yow ah di ko laat ci mbiram boppam laaj ko ne ko ndax yow am nga doom mi ne ko waa am naa doom am naa ñetti doom mi ne ko lan nga tuddee mi ne ko kenn ki Yusuf laa ko tuddee kenn ki deret laa ko tuddee kenn ki maa ngi tuddee tilli de mi ne ko ah yow lan mooy tur yooyu mi ne ko heure bu ma fàttalikoo deret rek eh, eh, eh, heure bu ma ooyee ah, sama doom ji tudd deret bu ma ne ko dammu rek daf may fàttalikul ma man cee fàttaliku Yusufa ca deret ji nga xam ne takkaloon nañ ko ci yére ba de bu ma ko waxee rek loolu daf may fàttaliku Yusufa heure bu ma fàttalikoo deret daf may fàttaliku Yusufa tilli gi nag mi ne heure bu ma fàttalikoo tilli heure bu ma heure bu ma ko heure bu ma ko ooyee rek daf may fàttali ci li nga xam ne moo lekkoon sama mbokk ma de loolu yëpp def naa ko rek ngir fàttaliku Yuusufa de muy wax ak moom di wax ak moom di wax ak moom di wax ak moom ba ci yàgg rek ah wax ak moom di wax ak moom ba ci yàgg rek xaala wax ko ne ko inniyee naka man ana man akuka maay mbokk sa de man maay sa mbokk yusufa man maay sa mbokk yusufa falaa tëb tey bul jàppee bi ma kaanu ca lañ nekkoon yafaaloona di ko def de yaa ñii nag eh, suñ mbokk yi def gi ñu def li ñu doon def ci lu bon yëpp loolu bu mu la tiital bu mu la jaaxal de waaw bi mu ko waxee loolu nag mu mu mu tatafu ko rek ne ko duma tàqali ko yow nag mukk nag duma tàqali ko yow mukk fii laay toog ci yow fii laay toog mi ne ko ah da nga def mi ne ko mi ne ko yow suñ bàyyi ah gis nga te yow la teewoon pour di ko defoo kon boo boo demul kon mbir mi dana gën a métti ci moom de mi ne ko dem daal du ma ko dem man daal du ma dem ci yow laay toog ci yow laay toog de mi ne ko kon xaaral ma def pexe de mi ne ko waaw dafa pexe pexe moo man def daal man dem mi ne ko waaye bu ma defee pexe dinaa la tuumaal mi ne ko lu la neex waxal waaye man daal du ma dem ci yow daal waaw de loolu bi nga xamee ne loolu am na ah xam ne kii moo Yusufa Yusufa nag ma ngay def pexe pexe mañ koo defoon moom la indi de pexe dana ñëw ci kanam ñoom nag bañ leen njëkkalee ba pare moom lay buur di wane falamaa ah moom lay buur di wane falamaa di azum ba njëkk ah ah ba mu yebalee leen bi ja ah bi jaadihim ci yebal seen ah ah jaala mu def assiqaayata saasa ah, fi fi raxli fi raxli aqi ca sa fi mbokkam ma ñoom nag bi nga xamee ne ah njëggal leen ba pare. mu jël ah, pot bi nga xam ne moom moom la daan yusufa di naanee pot bi ci xiimam ci alal toll na ci ñaar téeméeri junne dinaar pot bi ndax urus lañ ko defaree or lañ ko defaree pot bu rafet la moom la daan yonent yàlla yusufa di naanee waaye teral gi leen teral ak bëgg gi leen bëgg moo tax ba muy natt njëgg mi ci pot boobu la leen nattalee la leen nattalee njëgg ma ah bi loolu amee nag bi nga xamee ne bëgg naa def pexe moom mu jël pot boobu daal di ko def wax bëgg néegam ne boo leen yebalee ba pare jëlal pot nga def ko ci sëfi Benyamin bi nga ko fa def nga def ko fa def ah mu def ko fa nag te te te te mbokk ko def ko te mbokk mi yëgul ko de bañ a njëggalee nag bañ dem bañu dem bay waa ji génn dëkk ba rek suma asina topp yéene mu asinun aji yéene ja mooy aji hoote ja hoote ah, ah, jugee cer a yusufa mi ne ayatuhal mi ne ayatuhal héero e yéen njëgg mi e yéen xaafila mi innakum nag yéen la saariquuna way sàcc ngeen de aa ba ñuy dem rek aji hoote ji hoote de ne e yéen njëgg mi sàcc ngeen de taxaw leen xaalu ñu wa a ñu wax ko wa aqbalu tan jublu wa alayhim ci ñoom ma ma maza tafqiduuna ana lu ngeen di nemmeeku ana lu ngeen di nemmeeku ci ñun a ana lu ngeen seet ci ñun xaaloo ñu xaaloo ñu wax leen ne naf tudd danañu nemmeeku suwaal malik yi saa si buur bi le mooy pot bi nga xam ne moom la buur bi doon naane wali man jaa aji nekk na ka dikk ka dikkee ko fii ci moom a im lu baayirin a im lu baayirin a njëg gi a njëg gi gëlëm de képp ku ko dikkee képp ku ko dikkee daneen la jox sëf ba mu fees ak gëlëm de wa ana man euh, zaimun yi def la ma ko bii ci moom de euh, mu wax leen loolu nag ne leen képp ku indi njëkk moomu képp ku ko dikkee rek daneen la jox euh, sëfu gëlëm daneen la njëggal ba mu fees ci gëlëm de daneen la ko jox de Yuusufa nekk ne man te dogu naa ci loolu loolu dana am xaalu wax ko tallaahi ngeen yàlla laqad alimtum xam ngeen maa ji inaa dikkuñ li nu sere di yàq fi laa di ci suuf wa maa kunnaa nekkuñu saariqiina di way sàcc de ñin xam ngeen ne yéen ñëwuñ ci dëkk bii di yàq dëkk bi ñin nekkuñ sàcc de duñ sàcc de sàccuñ de ndax booba ay saalihiina lañ mat nañ mat nañ ba ñoom ñëpp booba ay sulaxaaw lañ ñoom ñëpp mat nañ sëkk nekk ay ay nit ñu sell ba nga xam ne saa ba ñu dugg ci dëkk ba dañoo jël seen jërëm yi takk gémmiñ gi pour bañ mu for benn pepp boo xam ne mëmul ko ngir ragal rek ngir ragal yàlla rek booba dem nañ ba tollu ci maqaamu boobu de ah xaalum wa moom yéenekat ba moom bëkk néeg ba ne fa maa jazaa'uhu lu dik fayam ka sàcc in kuntum dem nekk ngeen kaasi bi ne di woy ah narde ci seen wax ngeen wax ne maa kunna saariqin yéen nag ana lan mooy fayak ku sàcc ci yéen gis nga ah, bi nga xam ne loolu am na rek ah, Yusufa dafa ah, ki bëkk ne bi daf leen laaj ne leen yéen Yusufa moom xamoon ne ne ne Kanaan moom Yaquba képp ku fa sàcc rek yow yaay fayat la nga sàcc ñoom nag bu bëkk ne bi laaj leen ne leen yéen ku sàcc ci yéen ana lan mooy fayam ana lan mooy fayam su fekkee ne yéen lu ngeen fekkee ne yéen da ngeen di fen waxoo leen dëgg xaaruñu waxoon ne jazaa'uhu fayam man da mooy ka fekk na fii a fii rahlihi ci ci sëfam de foofu moom aji sàcc ji ak jazaa'uhu ak fayam la de ki nga xam ne moo sàcc loolu moom mooy fay sàcc ga de kadaalika na ko loolu ñi ñi fay ñi ñi fayee na ji lay fayee alzaalimiina way tooñe de ñoom nag a ñi ñi commencé ñi ne daal ku sàcc daal yaay yaay fay ak la nga sàcc yaay fay la nga sàcc de ña ngay dajoo nag ña ngay dajale nag Yuusufa nag ñëw na ña ngay seen bagage yi fa bada a tem tàmbali a bi aw yet yim ci sëf seen mu tàmb a xable wi ay àq yi njëkk sëfi mbokkam ma de moom nag moom Yuusufa ba muy visite rek ba muy visite di xool rek mu njëkkee Euh, euh, safi robin mi nga xam ne mooy seen mag mu njëkkee ko ndax bu tëboon rek njëkkee bu bu bu rakkam ji rek daneen xam ne moom moo ko ko def rek mu njëkkee ca magam ji di leen wër nag di di wër di wër ñoom ñëpp ba gisut mu mu dem mu soog a dem ci euh, bu rakk bu benn yaamin bi de sumastaxrajaha topp mu génnee ko min wiyaay xaqi tukkee ca safi mbokkam wa de mu génnee saasa pot ba mu jugee koo ca sa mbokkam wa de xaala wax yàlla kadalika naka noonu mu pexee moom yusufa kit naa dañu pexeloon li yusufa ñeel yusufa a ma maakaana ñooñu yusufa pexel leen noonu lañ pexelee woon yusufa de noonu lañ um, yusufa li yàquda di jàpp a xaawu mbokkam fi diinil maliki ci diinaay buur bi illa an yasha allahu ndara bu soob na yàlla an narfoo dana yëkk daraja a darajaati man nashaau darajaat mi soob de wa fawqa kulli di ilmin ki aji nekk la si ci kaw bépp borom xam-xam ak aji nekk la xam-xam alimun gën ci xam de yusufa nag pexe mii mu leen defal DPM nii mu leen defal defeewu ko ci euh, diinaay euh, buur bi ndax buur ba seen diine ñoom waa Misra ku sàccal dañ lay dóor ba pare dañ lay dóor buggal la buggal lu metti waaye nag moom lii mu def lii def ko def rek eh, ci yànk wala yàlla yàlla moo ko koy ilham rek mu def ko moom Yusufa mu def loolu rek ñu def ko rek ah, ah, loolu la leen defal moo tax mu mën a xam ku sàcc sa moo tax mu mën a jël rakkam ji pour mu mën faa des de ñu wax ñoom ñoom mbokk ye ne in yasriq ndem sàcc na moom moom Benyamin faqat saraka sàccoon na ak xun mbokkam lawu ñeel gori min qablu ca njëkk su fekkee ne a euh, euh, euh, su fekkee Benyamin sàcc na loolu loolu amul luñ ci yem ndax mbokkam yu ba sàcc la woon sàccoon moom sàcc la war a kon loolu du ba bàyyi mi ne ña ngay dafa texaay fu fuñ koy waxee xamuñ fuñ koy waxee sax waaye ñu ngi wax lu leen neex lu tax ñu ne Yusufa sàcc la dafa am benn maamam bu jigéen ci wàllu yaayam koo xam ne daf doon jaamu këram Yusufa daal di ñëw fekk yi daal di ko jël rek dem toj këram yi dem toj ko loolu moo tax ñu ne sàcc la wala ñu ne bàjjanam ki nga ne mbokk Yaaquba la jigéen Yaaquba la dafa bëggoon Yusufa loolu bëgg koo xam ne bëgg gu tat la bët bu set rek muy sàkku muy sàkku ci yaaquba ne ko ebelal ma yusufa mu ñëw ci man bu ñëwee ci moom ba ngoon rek mu delloo ci ko bés nag maamam ci bàjjanam bëgg gi mu bëgg yusufa bëgg na ko lool bëgg na ko lool te e, e, e, te mënu koo jël ci bàyyam ndax bàyyam it moo ko gën a bëgg mu ne xaaral ma def pexe daal di wax yusufa mu ñëw ba ba yusufa ñëwee këram nag ba muy ñibbi di ko delloo ci mu jël bu moom doon noonu ci yonentu yàlla ibrahima mooy mbub ma nga xam ne Ibrahim ba mu nekkee ca safara wa moom lañ ko ñu raf leen ko sànni ko mbub ma ko Jibril ñëwoon solal mbub moomu gannaaw ci ñoom la nekkoon ñi koy donnante di donnante ba mu àgg ci bàjjanam te bàjjanam jamono yooyu mooy mag yére bi ci moom la nekkoon noonu nag mu bëgg a def pexe jël Yusufa daal di ko jël jël yére yonent yàlla Ibrahima daal di ko takk ca ndiggam la de daal di ebal Yuusufa ne ko demal mu yóbbu ko na ba mu demee mu daal di siiwal ne yére yonentu Yàlla Ibrahima sàcc nañ ko sàcc nañ ko ñu koy seet di ko seet di ko seet di ko seet ba fekk ko ñu xool Yuusufa rek si mu yére bi rek fekk ko mi ngi ko takk fekk bàjjana moo ko defoon fekk pexe rek la bëggoon pour def ko pour Yuusufa mën a des ci moom rek loolu moo tax ñu ne Yuusufa sàcc la su fekkee benn bi sàcc la magam Yuusufa sàcc la de sàcc la woon xamuñ sax fuñ ko waye de fa asra te nëbb ko yusufa yusufa fi nafsi ci boppam de yusufa nag mbir mi naq dina ko lool waaye mu nëbb ko ci boppam wala mu diyaa deful feeñal ko aqaa allahum ñeen leen aqaal mu wax moom yusufa ne antum yéen charun yéen a gën a bon makaanan ci barab de wallahi yéen a bon ci yusufa ak mbokkam yéen a bon ci moom de wallaahu yàlla aki wallaahu yàlla aalamu aji xam na bi maa tasifuna ci lépp lu ngeen melal de xaalu ñu wax ko yaa ayyuhal azizu e yow e yow azizu misra inna lahu na ko ñeel na ko ñeel baay cheikhan kay kay kabiran kay magget foqul jàppal foqul jàppal aada naa kenn ci ñun makaanu barabam de innaa na ko ñun naraaka danañu gis la mel muxsinina ci way yewenal ñe gis nañ la nga bokk ci way yewenal ñe allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahumma salli ala sayyidina walina wal akhirin yàlla mu ko tàmbali baat bi yàlla ko àggale jàmm te bañ cee def ndog yàlla yàlla mu ko xam dëgg-dëgg yàlla ñu ko xamal yàlla barke alquran yàlla ka ko wasal ki ñu ko wasal ci moom ak li tax wasal ko moom yàlla barke diine islam